lañu teg ci bopp ministère bile. à n'en pas douter partout ndax fépp fu mu jaar def fa liggéey bu ñoŋ. des traces indélébiles d'un succès franc. gannaaw amaluk élection njiitu réew mi yeneen dossier itam nekk na ci daal jëwriñ ji gàllo kaaraange biir réew mi mi ngoog euh, passation la woon ndiki tey ci suba Abdoulaye euh, Mbow en tout cas li nu mën a jàpp ci boobu rek nomination bu maître Sidiki Kabari bokkoon na ci évidemment euh, coow li ci organisation élection yi waaye dalal na xel yi. dina fexe ba élection yi organisation bi daal mucc ayib ma jàpp ni donte le ministère de l'intérieur moo chapeauté lépp li nga xam ni moo di kuréel. moo xam euh, direction de l'automatisation du fichier moo xam li jëm si direction générale des élections ak lépp li nga xam ne jëm na si lépp li nga xam ne dafa soxla organisation bi waaye administration bi moo di jouer rôle bi ëpp solo kon boog administration bi dëgg-dëgg moo war a tëddee njaaxaanaay ba nga xam ne lépp li nga xam ne rôle la bu mat bu ñu war a jouer daañu ko joue waaye itam si ginnaaw li nga xam ne moo di commission électorale national autonome di Sénat itam andi si wàllam parce que itam texte yi jox nañ ko doole googee pour mu def li nga xam ne moo di moo di rôle am euh, nañu fexe ba nga xam ne incha allah élection yi daa mucc ayib te du am lépp li nga xam ne par rapport ku ku ñu xam ne sénégalais yi euh, moom la ñu jox baat ñu xam ne kooku la jox baat te lépp jaaree ci transparence ci règle de démocratie ak ci li nga xam mu di équité par rapport ak li nga xam ne mooy candidat yu war a sekk incha allah élection boobee. en tout cas waxante na lu baax Ndeye Fatou diggante Abdoulaye euh, Diome Félix Antoine Abdoulaye Diome mi génn ak moom mi dugg maître Sidiki ba ndax xel mën naa dal ak kàddu yu mu yëkkati ci organisation élection yi ñoŋ. waaw mën naa nekk euh, parce que moom dafa def ay preuve te lii nga xam ne moom lañ ko jox tey muy ministère de l'intérieur mu nañ jàpp ne promotion la ci moom li koy firndeel bokk na ci liggéey bi mu def ci ministère des forces armées ak suñu présence militaire bi nga xam ne renforcer nañ ko daano nos et aussi leneen mu di wàllu gendarmerie liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy euh, liggéey ci défence bi nga xam ne moo am ci biir dëkk bi maanaam sécurité de l'intérieur parce que boo xoolee léegi artère u Dakar yi li ci gën a ëpp gendarmerie ngay gis ñu yor sécurité sécurité bi alors que bu njëkk ba police ñoo ci gënoon a euh, présente loolu day wane ne ministère des forces armées euh, def na fa ay preuves léegi nag intérieur moom c'est plutôt politique parce que mu ngi war a organiser lii di présidentielle bu 2024 bi euh, ñu ngi ko ciy xaar mais je sais que Euh, c'est un acteur politique et politique bi nga xamante ne mu ngi ci dina ci gën a wane boppam. mi ngoog euh, ñu àddu wax ci euh, fédération nationale ëmb boulanger yu Sénégal yi ñoom nag li ñuy sokk mooy ñu yokk ci miisu mburu bi ci fukki dërëm ci sunu koppar ci baguette pain bi mu mel ni kon ni ki tey lañ doon amal ak janoog way taskatuk xibaar yi li sabab li ni mel wax nañu ne jafe-jafe yu ñu am ci seen wàllu liggéey mu yokk itam bi nga xam ne daanaka sonal sonal na leen lool ca noonee laata ñuy tàbbi ci yokk bi wax nañu ne ñu ngi sàkku ci ab ndaje bu yaatu diggante conseil régionaux yi ak kilifa yi su ko defee ñu mën a xool bu dee mën naa ne ñu jàppale leen eh, ci jafe-jafe courant bi bu dul lale nag mënta ne ñoom ay la yowin dañuy yokk fukki dërëm ci miisu mburu bi seen ndaje boobule eh, Tidiane Diallo ak Jean Mendior ñoo ñu fa teewaloon. taxe yi ñu teg ci intrant yi ak yokkute njëgum courant bi lii moo waral boulanger yi di interpeller kilifa yi ci situation bi. levure bi ñu jëndee levure bi gën a yomb laa wax mooy levure bu wow bi bi ñu jëndee doon jëndee dix huit mille léegi dem na ba ay trente mille si ay yenn marques yi am na sax ba trente cinq mille. sax ni même sax papier yokk na papier léegi ay ay huit cent nga doon jëndee léegi yaa ngi mille cinq cent xolam dafa yokk sel iode bi. ndogal yi ñu jëloon ngir réglementer secteur yi kenn applique ko ci terrain bi loolu tamit ñu ngi koy dénoo. dama bëgg nga leer ni anarchie bi gis ko maanaam mburu ñu ngi koy jaayee si boutique yi jaaduwul ñu ngi koy livrer jaaduwul. boulanger yi nag di xamle bëgguñu yokk njëgum mburu bi léegi nag lenn rek lañu bëgg. woote conseil régional pour mu réunir suñu droit la gën saa néew fukki dërëm la ñuy laaj si njëgu mburu mi parce que mooy li jaadu. bu ñu xoolee yokk-yokk yi mooy li jaadu waxuñu dañuy ñëw yokk mburu mi léegi fukki dërëm de waxuñu loolu de. su fekkente indiwuñu saafara ci seen revendication yi ñoom nag nee nañu dañuy jël seen responsabilité dàquñu. Tidiane Diallo balaa seen i kàddu di daanu jëriñ gi tontu na leen moom jëriñ ñu denk wàllug euh, commerce ci lu jëm ci wàllu yokkute mburu moomee ñu bëgg ñoom boulanger yi wax na ne loolee mënta nekk jamono ji Abdou Karim Fofana wax na ne nag gouvernement bu Sénégal daan nay noppi euh, ngir mën a waxtaan ak euh, boulanger yi ngir xool ana yan yoon la ñu woon a jaar ngir mën a ami solution Abdou Karim Fofana ñu teewlu ko ak Fatmata Diop. gouvernement du Sénégal jàppul tey jàppul ëllëg yokk mburu fii ci Sénégal ndax tey li nga xamante ne moom mooy mburu bu ñu waree yokk njëg bi mburu dafa bokk ci li ñuy wax prix homologué donc bu amee lu ci yokk état moo koy décider du boulanger yi ñoo koy décider ñaareel ba fekkee ñoom ci seen liggéey dañ cee gis lu yokk wala loo xamante ne ci doxalin bi wala ci njëg yi ñuy jëfandikoo moo xam courant la moo xam farine la léegi dañuy ñëw wax ñu ko ñu waxtaanee ko ñu xool duñ koy saafara yokk bi ba deux mille vingt trois njëgu mburu jàpp nañ ne waroon na egg ci juróom benn fukk ak juróomi boobu ba léegi mu yem ci fanweer ak juróom c'est parce que état du Sénégal ci budget lu toll ci juróom benn fukk ci ay milliards la jël ngir saaku farine bi waroon jar juróom benn junni bu manqué ñaar téeméer mu jar ñeenti junni bu manqué ñaar téeméer. mën nañ xaarandi ay waxtaan ñuy dox si digganteeg euh, gouvernement bi ak nga xam ne di waaw waxtaan yi lu yàgg am la mosul dog xanaa kay gën koo def rek buñ ko bëggee suba ci suba première heure ñu ngi leen di xaar ñu. mi ko Abdoulaye ay la yowin ay du yam ci bopp borom coowal courant bi fan yëpp ñu ngi koy nemmeeku ak askan wi ci sonn lool dem na ba dal wala sax sonal lool boulanger yi ñu jàpp ne lañ doon am amatuñu ko ba ñu bëgg a yokk miisu mburu bi loolu itam ministre bi am na lu mu leen ci tontu. waaw euh, naa ne nag euh, courant bi euh, yokkute bi au delà des boulangers dina am amaana répercussion si yeneen secteur d' activité yoo xam ne dañuy defar ay produit ay jumtukaay yoo xam ne amaana askan wi dañ koy soxla parce que tamit buñ ko waxee te dee moo courant bi. cher na cher goo xam ne jamono yi ñëpp a koy booloo jooy je pense que gouvernement bi li mu mën a def mooy liggéey ba nga xam ne daañu wàññi wàcc njëgu courant bi ba nga xam ne effectivement famille maanaam daañu ko àttan Euh, de l'autre côté également ñiy liggéey si wàllu industrie comme si wàllu euh, mburu beek yooyu ñoom itam daañu ko gën a mën a attan il est vrai que dans le secteur industriel la ñuy consommer ak soxla su courant dina bari lool mais jàpp naa ne nag njëgum courant si wàllu kilowatt heure li muy jar Sénégal defe naa ne njëg bi nag boo ko comparé ak kilowatt heure lu muy jar si dëkk yu bari Afrique te ñu saytu ko effectivement ñun suñu courant bi cher na jàpp naa ne nag euh, wax nañu ko am na lu ñuy xaar ñëw mais war ñu def ay jéego mais dans tous les cas suivre les concertations ba nga xam ni tamit euh, ñun tamit duñu nekk euh, nu ñu koy waxatee euh, ñi ñi ñuy tojul butéel ba pare war war a fay fay fay butéel si kaw loolu mooy bu fekkee ni njëgu courant bi dañ koy yëg si ay produits yu bari au la du pain def naan loolu tam dafay gën a andi gàllankoor si gafaga consommateur bi te consommateur yi jamono yi la leen gën a sonal bokk na si li nga xamoo di courant mi ngoog Ndeye Fatou xam naa yokk gi moom ci wàllu mburu gi doo ko yëg ndax fonde gën a taamu waaye ne euh, bu nu ko yokkee euh, ñëw teg ci itam yokkum courant bi daanaka askan wi nag ay la moom moo ci sonn courant yokkoo rek dina jouer ci lu bëri ci prix yi ndax ñu bëri ci li ñuy liggéey courant dafa bokk ci li ñuy jëfandikoo bëri na secteur yoo xamante ne dañu dépendre ci courant lii nag boulanger yi ñoo njëkk a wu yokk bi lañuy ñuy gën a gis wala moom la ñu gisagum mais bul bul xaar ne bul euh, tàyyi di nga xaar yeneen yokk yuy am ci yeneen domaines yoo xam ne askan wi dañ koy jëfandikoo c'est très simple Senelec lii ñu def ci yokkute njëgu courant bi loolu manque de respect au consommateur la parce que consommateur bi am na àq ak yelleef su ne yokkute am na am na benn explication boo xam ne war na jóge ci Senelec jëm ci consommateurs yi moo tax ma jàpp ne xeex bi nga xamante ne sunu naataango di Oumy Ndour mu ko initié mais loolu xeexu sénégalais yëpp la parce que Senelec dafa jot mu am respect ci ñi nga xam ne ñooy les consommateurs sénégalais su amee yokkute ci mbiru njëgu courant bi nañ ko wax askan wi mais xëy rek daal di ay prix yoo xamante nouvelle euh, nouveau tarif lañ te yëpp ci yokkute la jëm mais loolu lu du commerce tey xupp yi muy def mais ñii liggéey su fekkee ne dem nañ ba gisatuñ ci seen bopp am nañ sañ-sañu yokk njëg yi parce boo xoolee lii di tata yi fii lañ yokk seen yi njëgu prix parce que jàpp nañ ne transport bi gisatuñ ci seen bopp et que njëgu essence bi dafa diis lool ci seen kaw kon tey ñii di boulanger yi bu ñu gisee ne ñoom it li ñuy liggéeyee